ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal monsieur le directeur général Antoine Cheikh Dieng euh, nomination bi nga xam ni moom la a président Bassirou Diomaye Faye na ko ji yàlla na ci am ndaw lu kawe njortam yàlla na ci am ndam loo xam ne lii kawe na njortu kilifa yi nga xam ñoo ko teg ci bopp réew mi te am nañ ci yaakaar ndax gis nañu CVM waaye xam nañ ni mën na ko te dana ko réussir allah li may ñaan ONAS rek mooy na ñëpp nekk benn say bokk ndey bokk bàyyi ànd ak moom jàppale ko ndax kat nawet bi ngi ñëw yegg si na sax ba noppi te mooy nekk première activité xëy na bu bu gën a bu gën a tara donc maa ngi ñaan directeur li ñu defoon nañ ko yokk ngir ñu am ndam ndax bu ñu amee ndam rek Sénégal moo am ndam maa ngi wax léegi ne ñun ay républicain lañu ñun ay agent de l' état lañu ñun état la ñuy servir servir ñu keneen kon monsieur le directeur général ñu ngi lay ñaanal di wax nag ni bi ñu jëlee li li ñu li ñu santoon te ñu waroon ko def moom nga xam ni moo doon suñu yàlla def na yàlla def na kenn mënu def lépp waaye lañ ca mën def nañ ko li mm. ñun ñoo koy jugé histoire moo koy jugé kon nag ñëpp ñi nga xam jàppale woon nañ liggéey boobu maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant mbooleem personne ONAS yi ma doon liggéeyal ndax li bu dee résultat yi ñu am baax na ma ne bu dee baax na yéen la ndax directeur général moom la sëriñ bi na wax léegi naan docteur droit la ko dañu koy jaawale docteur man may ñëw fii suuf laa xam man dara laa jógee xaw ma ndox donc fekk naa fay collaborateur ay ñu baax ma àndandoo ak ñoom liggéey ba réussir lu ñu réussir tey kon nag administration noonu lay demee da ngay liggéey ba ci barab sa jeex nga dem jox keneen bu yeggali kon foofu la mission bi yem ñu sant ko suñu borom bu baax nag sant yàlla bu baax a baax a baax baax baax a baax sant suñuy waajur xam nañ fi ñu jaar xam nañ fi ñu jógee te li ñu réalisé nii suñu yéene ëppoon na ko kon monsieur le directeur général foofu ñu tàmbalee foofu ñu yemale yëf yi yow foofu ngay tàmbale yóbbu ko feneen ba kenn di ñëw tam remplacer la mu ànd ak ay résultats baax baax baax. ñu nekk tamit ci contexte boo xam ni loo ndox ci boppam dafa nekk un enjeu bu ñu war a sakkanal mooy ni jëlee ndox ci kër gi tuur ko ci géej ga daa war a xewi dañ koy toggaat delloo ko askan wi ndax askan wi da soxla ndax pays sahélien kooku bokk na ci enjeu dépp na ci défi yi nga xam ni incha allah dinañ ci taxaw assainissement dafa bokk ci liy mottali dignité askan wi dafa nekk un facteur de développement ndax day laal ci sunu wér-gu-yaram day laal ci sunu cadre de vie kon muy droit boo xam ni askan wi ak fu ñu mën di nekk war nañu faa fekk jàppale leen ci seen assainissement bañ am assainissement bu mucc ay loolu nag wax naa ko léegi askan wi dinañ ko ci gunge ñoom ci seen bopp pour que ñu mën a am assainissement bu ci am solo te DG wax na ko léegi DG Soxna Mamadou Mamour Diallo population yi dañoo devenir de plus en plus exigeante et à juste titre dañoo am droit pour être exigeant pour avoir un assainissement de qualité kon c'est à ñun d'être à la hauteur des des exigences légitimes des population à accéder à un service d'assainissement de qualité ah loolu na ñun jàpp nañu ñetti mbir dinañ ci def nañ ko nañ ko fësal ci action bi nga xam ni bëgg nañ koo def fii ci biir ONAS incha allah hmm. bu njëkk bi mooy ñu yaatal réseau d'assainissement yi surtout mu jëm ci banlieue yi surtout mu jëm ci ville secondaire xam ni ci bari amaguñu ay plan d'assainissement directeur ay plan directeur d'assainissement fexe ba sénégalais yépp ña dëkk Ndakaar ak ña dëkk ci ville de l'intérieur ku ci nekk mën a am accès ci ñi dëkk ci biir Ndakaaru ak ñi dëkk ci banlieue yi ku ci nekk mën a am assainissement wante ñii duñu am ay réseau ñii am ay fosse loolu ñaari catégorie sénégalais yi bëgg nañu fexe ba mu deñ Sénégal ku ci nekk mën a accéder ci réseau assainissement wa ONAS incha allah bëgg nañ tamit améliorer le taux de traitement des eaux usées la qualité de traitement des eaux usées. benn an bi ni Cambérène maa ngi fàttaliku effectivement émissaire bi bi ñu tabax population Cambérène dañoo bañoon mën nga fekk présidence de la république ma nekkoon conseil technique du président Ablaye Wade xeex naa ji lu bari pour que émissaire boobu man a am parce que xamoon naa enjeu bi mu am wante li nga xam ni mooy mandarga bi ñuy jox eaux usées muy eau boobu muy ndox moo xam ni duñ ko traité duñ ko purifier moo tax waa Cambérène bañ ni émissaire bi du ñëw pourtant doon na dem ba 17 kilomètres ci biir géej gi ci ñu étendre suñu réseau suñuy infrastructure suñuy plateforme mais day jaar surtout ci ñu jox nopp askan wi diglu askan wi lan lan mooy seeni besoin en matière d'assainissement pour que ñu mën koo satisfaire ndax nag buñ fàtte ko buñ fàtte mu ko ni service public la ñu mooy askan wi lañ fi toogal dañoo war a servir askan wi quartier boo dem am na association yoo xam ne boo leen gungee jàppale leen ci techniquement jàppale leen ci ay moyens dinañ xam nañ fu nu ñuy def ak seen loxo quartier loolu seen approche communautaire seen approche participative dina bokk ci li nga xam ni dinañ ko gën a yokk ci wàllu xeex mbënn mi ci wàllu régler problème assainissement yi de soi dafa nekk loo xam ne premier ministre Ousmane Sonko daf ko campagne daf ko waxtaane ak askan wi ba askan wi nungul ko ko kon don de soi boobu le domaine de l' assainissement dina nekk son premier champ d' expérimentation ñu woo ci askanu Sénégal di leen ONAS tey jàpp na pour gunge quartier yi gunge groupement yi gunge association yi ku nekk si sa biir quartier nga def don de soi ñu ànd jàppale gouvernement bi ñu ànd jàppale suñu bopp ba mën a ñu jógee ko fi bu soobee loolu te ñun instruction yi nga xam ne moom la ñu président Diomaye jox mooy waxu mbënd monsieur le de le directeur léegi mi ngi naan deux mille cinq deux mille un sax bi ñuy bi Abdoulaye Wade doon tas Sénat bi mbënd mi la jëloon prétexte pour tas Sénat biir biirom léegi maa ngi ko 1984 ñun waa Jidda Caaree Kaw fekkoon nañu ñu nekk ci biir mbënd kon ñeent fukki atu mbënd lañ lañu dund Sénégal Dakar man nag doomu baax ya xam naa lan mooy mbënd parce que dama cee màgg mbënd jël sunu këru bopp Musdalifa kër ga ma dëkkoon kon kenn wax lan mooy mbënd ñu am engagement nag fexe ni ñu ko président damay fay sant taxawal ay stratégie yoo xam ni dinañ wutal yoon euh, mbënd mi ndox taw bi ay yoon yu ñuy jaar à travers des infrastructures structurantes des investissements structurants ba mbënd dootul nekkati stress ci réew mi loolu mooy li nga xam ne moom la ñu sant à travers des solutions durables tàllal naa leen loxo yéen ñëpp ngir ñu ànd liggéey waaye ci boobu condition jub jubal xam naa ni mën ngeen